li akrami raafil wahaabi sakara rajawtu minu taala sukru amali warfau lyawma anni niuma xafara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 di leen siyaare bu baax di jiital ci nuyu bi ak siyaar bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ñaan suñ borom mu yàggal ko fi lool te wéral ko ba li mu yéenee liggéeyal maam mu def ko na mu ko soobee ànd ak taalibe yi di siyaare bu baax itam Serigne Cheikh Ismaïla Serigne Cheikh Serigne Cheikh Ismaïla Mbacke ak Serigne Youssoufa mbay ak Serigne maam Cheikh mbay moom Serigne Sam ak Serigne Fadilou mbay moom Serigne Touba mbay mi nga xam ne mooy kilifa njaboot gi di leen nuyu di leen di leen ñaanal suñu borom defal leen tawfeex ak sutura xewal ak mucc tey nag su ngeen déggee suñu kàddu rek li daa xew rek moo xewati mooy bis bu mag bu tedd bu rëy bii nga xam ne moom lañ daan amal fii fi Touba Mbayeen Serigne Fadilou mbay ak njaboot gi yëpp ci njiital Serigne Ibrahima daa ko taxawal bis boobu moo dellu si ñu di ko woote di ko yëgal àddina bépp di ko yëgal murid yëpp di ko yëgal jullit yëpp. bis boobee itam nag moom la ñu fas yéene def le 19 janvier fii ci Touba Mbayeen bis boobee la ñuy woote ay kilifaa ngi ci jataay bi yoo xam ne ku ci nekk dana jël kàddu ku ci nekk am na ci bànqaas booy wootee kon ñu ngi ñaan ñëpp rek ñu maase ko teewlu ko su ñooñu wootee ñu déglu leen dégg leen wuyu si leen te luñ ci def yàlla ko sëñ Tuubaa gërëm loolu moo waral ñuy dégg suñu kàddu fii ci jataay bi ku mel ne Serigne Gueye dana fi jël kàddu moom itam woote woote bu yaatu ak ku mel ne Serigne Ali Sour moom itam dana ko jox kàddu mu woote moom itam ci liggéey bi woote bu yaatu ak ku mel ne Serigne Galas Dieye moom itam dana jël kàddu woote woote bu yaatu ku mel ne Serigne Omar moom itam des na ko dégg léegi incha allah moom itam woote woote bu yàgg ku mel ne Serigne Fallilou Dieng moom itam des na ko déglu incha allahu rabbi moom itam mu yëkkati kàddoom woote ku mel ne Serigne Fadilou Mbaye moom itam incha allah des na ko déglu moom itam mu woote woote bu yaatu tamatale sunu kàddu gi jàllee Cheikh Ibrahima Mbaye moom itam des na dégg kàddoom incha allahu taala kon ñu bokk déglu leen ñu bokk teewlu liggéey bi di leen yëgal ni si bu leen gisee jotaay bii nii du lenn lu may ngir waajal bis bu rëy bi nga xamante ni baaxoo na ko amal at mu nekk fii ci Touba Mbayeen muy bisub jaamu yàlla bisub sant yàlla di bis boo xam ne jullit bu nekk rek boo déggee suñu kàddu gis jotaay bii nii ba nga xam ni bis bu rëy ci lislaam ndax sunu borom tabaaraka wa taala day wax ni wa man kaana yarju liqaa rabbihi falyaamal amalan saaliha képp ku yaakaar dajak boroom ëllëg na jëf-jëf ju baax te bis bii ñuy waajal daa bokk ci amalu saalix yi sëriñ Ibrahima Mbay woote bis bii nga xamante ni baaxoo na ko at mu nekk muy bis boo xam ne bisub yàgg la di bisub cosaan bis boo xam bisub démb la ndax day mel ni waajuru sëriñ Sam mbey moo baaxoon di ñëw fii nii di seet si maame sëriñ Ibrahima Mbay mii mi dem ab diir sëriñ Sam Mbay ñëw fii ni di seet si waajur mu góor moom sëriñ Ibrahima Mbay bis boobu nag moom la fi Mbay jël mook ay magam ak i mbokkam ñépp ñu ànd di ko dundal kom na ko maamam daan dundale ak baayam ndax alxuraan day wax ne fa xalafa min baadihim xalf na daaxu salaata wa shahawaat fa sawfa yalqawna gayya moom boo déggee aay yooyu wala baat boo da xam ne kon ñoom bokkuñ ca ñooña bokk na ci nga xamante ni dañoo fas yéene jël ndono seen maam ak seen baay ba keroog ñuy fekk seen baay ak seen maam ci biir barzaq kon sëriñ Ibrahim ak xalifaam sëriñ Fàllu ak waa ahlu Mbayeen gépp ñoo ngi ko yëgal mboolem kuy julit mboolem kuy taalibe diggante ci yëgle bi nag njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke ba ci njabootu Cheikh Mouhamadou Mourtada njabootuk soxna faj ja ba ci njabootuk soxna may mën a suxraa ki sëriñ tubaa njëkk a seexal ak ki sëriñ tubaa mujj seexal ak mboolem teel bi borom tubaa yëpp ak mboolem jullit ci yàlla yëpp sa ibrahim mi nga sàkk képp ku fi teew ku nekk rek yàlla nga tasanteeg ngërëmal suñu borom tabaaraka wa taala tasanteeg ngërëmal borom tubaa ak faju aajo biir ak bit zaahir baat na bis nag buñ koy wax du len lu may ñett yi may bëgg a wax yàgg naa ko ci bis yu nekk mooy jàng alquran jàng xasida ak bernde ak waxtaan baaxu sëriñ bi buñ xëyee suba teel danañ ko ubbee alquran yendoo ko gontoo ko ba guddee fanaan ak bët set kon ñett yooyu jàpp naa ne benn bu nekk rek nit bu ko déggee fu ñu koy wootee jar na sol dalli weñ ba fekk barab boobu noonu ndax benn baat ci alquranu karim nit bu ko déggee ci noppam tuyaaba jooja mën na caa xéwlu fii ci àdduna xéwlu ko barzak xéwlu ko ëllëg yam xiyaam xéwlu ko bii na noonu lay amee ci bernde noonu lay amee ci waxtaane baaxu sëriñ bi amee ci al ci xasida kon si Ibrahima nee na mi ngi ko yëgal mbooleem kuy digg kàddoom nii ñaan mboolem ku fa teew ku nekk rek yàlla na suñu borom faj say xaajo biir ak biti zaahir baatinan dañ koy def na nga xam ne noonu ko daan defee ñoo ngi woote ci duru soppee sëriñ Samba yi nga xam ne ñoo ànd ak sëñ Ibrahima Mbaye di liggéeyal liggéeyal sëñ Samba Mbaye fii ci Mbàkke ñoo ngi ci woote ci turu Cheikh Mouhamadul Fadil Dieye mi nga xam ne moo ko nekk ci bopp bi ak sëñ Alsaan ak sëñ Daam ak mboolem ñun njaboot gi nga xam ne ñoo takku ci biir liggéey bi ñoo ngi woote ci bis bi nga xam ne moom lañu daan baaxoo woote at mu jot di ko ànd ak sëñ Ibrahima muy sant Serigne Sam Mbaye fii ci Touba Mbayeen ñoo koy fàttaliwaale mboolem ñi nekk ci biir daayira bi ñi ak ñun ñi nekk bitim réew ak mboolem ñi nekk yëpp ñoo ngi leen koy fàttaliwaat te di leen ci soñ bu baax a baax di wax ne bis bi agsi na ngi ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala lépp luñ ci def yàlla nangu ko liñ ci yéen yëpp suñu borom defal na ko ci daraje sëñ Touba ñoo ngi woo ñëpp bàyyi wuñu fenn góor mag ak ndaw ak mboolem soppe di ñaan yàlla suñu borom yóbbuñu ci ak jàmm te lépp luñ ci def rek suñu borom nanguñu ko ci barkeb Sëñ Tuubaa loolu nag mooy suñu bis ñun waa Mbàkke Bawol suñu bis ñun waa Sénégal waaye suñu bis ñun mboolem yoonu murit muy bis bi nga xam ne Sëñ Ibrahima Mbay waxoon na ko woote ngir ñu ànd sant Sëriñ Sam Mbay ngir liggéey bu mu liggéey ci diine ji di lislaam bis boobu nag nun ko baaxoo defee di ko ànd ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ci daa jàpp bu bis bi yegg si fii comme ni ko jëwriñ ji waxee léegi ren mooy ñaar fukki yoon ak ñeent wala ñett ñu koy woote kon ñoo ngi ñi ci daandal ñëpp ñoo ngi leen ciy fàttali niñ ko daa baaxoo ànd ak ñoom ñi xam ne ñoo yoroon njàngam alxuraan mi ci njiital sëriñ imaam Mbàkke sëriñ imaam nga xam ne moom moo jiite mboolem ñi jàng fii ci koñ bi ñu toftal ci sëriñ Baara Ñang sëriñ Mansour si waa daare sëriñ Xaarim Jéey ak sëriñ Ahmadou Mbay ak waa daare sëriñ jaañ Diagne fàttewuñu waa daare sëriñ Mamour Diop ak mboolem ñi xam ne ñoo baaxoo jàng alxuraan fii ci koñ bi ak ci dëkk bi fàttewuñ képp koo xam ne daal yaa ngi jàng alxuraan wala alxuraan neex la bis boobee na nga fekke ca jotaay ba ngir ñu dundal ko ci alxuraan bu loolu wéyee mboolem dëkk yi nga xam ne baaxoon nañ ko ànd ak ñoom ñoom ñi nga xam ne at yëpp ñoo ko ànd ak ñoom ñoo leen ciy soññati bu ñu waxee waa Daaru Rahman fàtte bu ñu it waa Touba Mbobaril waa Sam Thialé fàtte bu it ñi mboolem ñi nga xam ñoo dukkee ci xur wi waa Touba Ndiliki waa Touba Yaañka ak tubaa Bofil fàtte wu ñu waa Touba Duy Sang waa Touba Beto ak mbooleem ñi nga xam ne daal Touba Daga Diouf ak mbooleem dëkk yi nga xam ne baaxoo nañu wut si fii di si fii ci bis bi nga xam ne ñoo suñu Ibrahima ñoo ko daa àndandoo at yëpp kon ñoo ngi ñaan suñu borom fekke lañu ko lépp lu def suñu borom nangu ko fëlal ñu ko dencal ñu ko fi yàq agut bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ay kilifam ak ay magam nee na mi ngi wool mbooleem ñi nga xam ne ñoom la seqaloon bis bi ca démb ja ndax ñaar fukki at ak ñett du du du du du du du tay nee na mbooleem ñim daan àndal doon ko yëngu ñi ci soon boroom jël yàlla na yàlla yërëm ñi ci am jafe-jafe yàlla na yàlla lijjanti leen ñi fi nekk nag te tal ko te man ko nee na fa waaye nekk tam roqe-roqe rek nee xelam mi ngi ci yow mi ngi lay tàllal loxo xam ne bis bi seen bis la yéen a ci jiitu yéen a ci mujj bu kenn jàpp ne dalaa fàtte wala mu day naagal la mboolem ñu mu ko doon àndal daal ca baawoon ca cosaan nee na mi ngi lay ni ngi leen bàyyi xel di leen fàttali xam ne seen bis la lu mu ciy def yéen lañ koy defal mbooleem ku ci ñëw di leen la jàppale neen di leen ci soñu di leen ko fàttali di leen ñaanal seen borom mboolem na ci waa yéen rek yàlla na ko def na ko bëggee te ngeen ànd ak moom ngeen woote ko lu yàgg-yàgg ba seeni doon ñëw yor ko loolu rek moo doon woote bi nee na bàyyi fenn bàyyi ñenn mi ngi leen di bàyyi xel yéen ñëpp muy sëñ Mbaye Dieng ak sëñ Ndiaga Dieng ñaar ñu ne nekk lu ñaar benn lañu waaye suñu tàmbalee mooy di sant yàlla bu baax baax a baax di ñaanal mag ñi fi nekkoon sëñ Tuubaa Mbay ak sëñ Bakar Mata yoroon ay taali al jàng alxuraan bareen koñ bi ñun jooyuñu ku ñu taxawu ay tudd jooyuñu ku ñu taxawu ku fi bàyyi ko jooyuñu jumaa jooyuñu dara ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla yokk yërmande seen kaw te jéggal leen bis bi nag loolu mooñ ci boole mais ñu xam ne bis bi aussi bisu waa kër sëñ Fàllu ndax ñun suñu waajur ci sëñ Fàll lañ leen xam ba man mi di wax ñu tuddee moo ko bi may nekk tur tànk li ma tuddee pare ñëw na ba ci kër gi moom sëñ Fallou leewu ma dox su may waajur ay teranga ñu ci woo nag njaboot sëñ Mbaye Dieng yëpp ak sëñ ak Ndiaga Dieng yëpp fu ñu mën a nekk kuñ tudd ne sëñ Mbaye Dieng kuñ tudd ne Ndiaga Dieng la ci bis bi di woo sët nag ndax bis bi bisu sët la sët yi ñi ci jiitu Modou Niang mi toog la ak Modou Mbodj ak seeni mag ak seeni rak bis bi yëpp yëpp seen loxo lay nekk ñi ci woo aussi waa kër Baye Idrissa Babou waa kër sëñ Mor Mbay tomb deel waa kër Baay Cerno Lay njaboot sëñ fal yëpp ba sëñ Mor Mbay tariyaax ñoom ñëpp ku ci dégg woote bi xam na seen jàmbaare la ñoom lañ tuddi bis bi ñu ñaan ñu teewe ci ko di ñaan ñu dugg ak naa rahmaani rahim eggale ko ak alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla nag lay doon te Moodu nga wax xale yëpp ne leen biraay bi eggee fii sëñ Moodu Moustapha bi muy bi muy taxaw ci gaa bi dem Daaru Xuddoos ma déglu ci wax bi waaye ni mbër di def la def yëkkati ñaar loxo ci kaw nga xam ne bàkku jot na kon boog bis bi le 19 janvier na ngeen ko def noo xam ne musta mel nen ci teraanga ak ci koom ak ci bernde jërë ngeen jëf. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam eh, jiital ci nuyoo bi Cheikh Mahamadou Nil Muntaqa ak sëriñ Cheikh Ismaïl ak sëriñ Youssoufa Mbay mi nga xam ne moo fi nekkal njabootu maam Cheikhul Kabir ak maam Cheikh mi nga xam ne moo fi nekk jataayu Serigne Sam tey di siyaare mbooleem kilifa yi ci àdduna bi yëpp di siyaare sunu kilifa gi toog di Cheikh Mohamad Fadal Mbaye di ko ñaanal ak yàgg ak wér balim yéene ci njaboot gi yëpp mu tal ko te man ko te fekke ko di dooley borom Touba waaye di dellu ziyaar sëriñ Cheikh Touba Mbacke moom sëriñ Mbacke Ramata moom mi fi nekkal sëriñ Mbacke Ramata di ziar sunu nijaay sëriñ Souleymane Dieye eh, waaye di ziar mbooleem njaboot gi famille bi ci wàllu ndey ak wàllu baay yëpp di leen ndokkeel di leen fàttali bis bu nu baaxoo amal ñun njaboot gi dañ ñu ciy tudd rek waaye ñoo ci gën a nekk ndaw dañoo nekk seen ndaw rek waaye kilifa gaa ngi nii toog di sëñ Fallou ta moo moome lépp bu ne woon nanu bàyyi bis bi tey nu bàyyi ko lépp it ci ndigalam lañ koy defee ndax nit ku nekk danga am kilifa te moom mooy sunu kilifa kon ñu ngi leen di fàttali bis bi bu baax a baax bis bi nag dañu ko baaxoo def di ci sant ñaan ñaanal ki nga xam ne mooy Serigne Sam ak mboolem njabootu am Cheikh waaye di ñaanal sunuy wayjur di ñaanal mboolem ñi nga xam ne fàddu nañ ñëpp di leen ci ñaanal ndax ñëpp xaj nañ ci ndax li ñu ciy jàng ci limub alquran ak xasida ak salaatu ala nabi ñëpp xaj nañ ci kon yàlla na yàlla nangu lépp te may nu nu fekke ko te tal ko te kenn bañ a manqué su ma limee nag damay juum waaye woo naa samay xarit woo naa samay bokk woo naa képp ku ma bokkal lislaam ji képp koo xam ne mas naa laa lebal bis bii maa ngi lay ci woo nga ñëw fay ma ci koo xam ne it masuma laa lebal maa ngi ñaan nga ñëw lebal ma ci kon bis baa ngoog le 19 janvier ci lañ koy def kon ñu ngi fàttali ba tey xam le ne bis bi nañu ko dara jaale Serigne Cheikh Mbacke Ramata mu baax mi nga xam ne dafa nekkoon fii nekk fii nekkin rafet ak ñon doon sunu mag doon sunu lépp yàlla dogal mu dëddu nu amoon yéene fàttali ko te ñaanal ko ci ndax ñaanal ko mooy ñaanal sunu bopp ñoo xam le ne jox nañ ko ci cër ngir dara jaale ko waaye tudde ko Serigne Mbaye Dieng ak Serigne Ndiaga Dieng mi nga xam ne sunuy way jur lañ waaye sunuy maam lañ nekkoon fii ci koñ bi nekkoon fii ñu baax a baax ñoo xam ne seen taxawaay ñëpp rafetlu woon nañ ko di leen fàttaliku ak di leen ci ñaanal ndax bis bi dañ ciy def lépp ci lu baax ku ne xaj na ci ñuy def nag at mu jot ñu tànn benn famille tànn benn kilifa boole leen ko at yi yëpp loolu lañuy ñuy def ren loolu mooy li ñu tànn ngir nga xam ne bu ñu demee ba àgg ci bis ba ren am nag coppite tuuti coppite gi mooy dañu daan julli timis rek def cérémonie bi waaye ren dañoo bëgg a teel a def bernde eh, vingt et une heures vingt deux heures ñu door a génn ci baas bi ndax dañu gis ne ñaari ndaje yi da daan métti ci nit ñi ñu bëgg koo def benn rek vingt deux heures jotee ñu tàmbali programme bi bi cérémonie bi jeexee ñu daal di continuer xasaayid yi ba fa ko yàlla yamale rek ñu yam foofa kon loolu mooy li nga xam ne moo ci am ak coppite ñu ne suba la nag danañu amal fii ngontum durus xasaayid ak alquran ci ngoon gi nekk ci nekk ci ba timis jot bu ñu jullee timis nag waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ñoom nga xam ne dañoo amal yéene seen bopp ci bis bi ñoom ñu leen ci woo ngir ñu ñëw tuddal nu yàlla nu ko daan defee ba guddi gi xaw a sori ñu dem noppalu ji bu ñu xëyee nag doora tàmbali programme bi kon daal loolu mooy li nga xamante ni moom lañu ñu nas ren ngir war koo def ñu ngi ciy rendre hommage ñaar nag di soxna Aminta Njaay mu baax mi nekkoon ci koñ bi ak ak ak soxna awasi am ne dañu ma bëggoon lool doon ma yittewoo lool bëggoon xasaay lool ñooñu moom dama leen ci ñaanal rek lépp lu ma fi def ci alquran ak xasaayit yàlla defal leen ko fañ ko fekk waaye bis bi moom ñi ma ko tuddee mooy ñooñu ma njëkk a wax muy sëriñ Seex ak sëriñ Mbay Jang ak sëriñ Njaga Jang kon daal loolu mooy li nga xam ne moom lañu ñu nasoon ren ma ànd kook soppey sëriñ Sàmba mbay yëpp xam ne guddi ak bëccëg noppaluñ benn yoon fépp fu ñu dem ñu ngi fay ànd ak man ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ak mbooleem ñu may àndal ci xasaayid yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ginnaaw loolu nag ñi ngi woo ñi nga xam ne ay jullit lañu rawatina ñi nga xam ne yamuñu ci doon ay jullit waaye ay murit lañu ñu ngi leen ciy woo te di woo it ñi nga xam ne duñu ay jullit te duñu ay murit ñu ngi leen ci woo ñoom it di ci woo ñi nga xam ne duñu ay murit waaye ay jullit lañu kon daal ñi ngi woo ñëpp képp koo xam ne nii rek maanaam buñ la xoolee gis ci yow jëmmi doomu aadama ñu ngi lay woo ginnaaw loolu nag ñu ngi woote ci njabootuk sëriñ Cheikh Abdoulahi Mbacke ibnu sëriñ Mbacke Ramata te sëriñ Habibu Mbacke nekk ci bopp di xalifaam ak rakkam ji nga xam ne moo fi nekk toog toogaay bi mu toogoon muy sëriñ Cheikh Touba Mbacke di xalifaab sëriñ Mbacke Ramata ak sëriñ Imam Mbacke mi nekk suñu ginnaaw di suñu kilifa nga xam ne sax moom bu ko neexoon kàddu gi moom moo koy jël ndax moom mooy suñu kilifa kon ci ndigalam rek daanaka la ñuy waxee ñu ngi woo ñëpp te di wax ci seen kàddu ñoom ñooñu di ko yëgal nag taalibi yëpp képp koo xam ne nii rek da ngaa àndoon ak sëñ bi te yàlla rek tax wala nga doon soppeem wala nga doon xaritam wala nga nekkoon ci daara ji wala aw doxilam aw doxinam neexoon la rek ñu ngi lay woo ci bis bi di woo tamit ñi nga xam ne dañoo ànd ak ñun ci suñu jëmm yu yu doy di moo xam soppe la moo xam mbokkum taalibe la moo xam ku mën a doon rek ñi ngi lay woo ci bis bi te di wax ne bis bi incha allahu rabbi bëgg nañ mu wuuteeg bis yi fi jaaroon wuute gi nag du lenn lu dul gën a baax gën a neex rek ñi ngi ñaan suñu borom dimbalañu ba ni ñu ko mbébatee ak ni ñu ko bëggee ñu defee ku nu kawe suñu njort di rafetlu nag jëf ji nga xam ne sëñ Ibrahima jëf na ko ndax bu yëkkatee bis tuddee ko jàmbaar ju di sëñ di sëñ seex di sëñ ak ñaa xam ne mooy sëñ jàgg jàng ak euh, magam jooju day mel ni dafa delloo dafa delloo mbattu rek ca ndaa la ndax ñoom ñëpp yàlla rek leen ñoroon lu baax rek lañ bëggoon yonent bi rek lañ doon roy te yàlla dong nag lañ fi nekkaloon kon ñoom ñooñu bu ñu leen tuddee bis bi day mel ni rek maanaam sëñ Ibra dafa def la ko war waaye nag ku def li la warit maanaam li la li ñi la wër ñëpp dinañ la sant kon def nga li war waaye ñi la wërit ñi ngi lay sant ñu ngi ñaan nag bis ba ñu yegg ci ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin te lépp lu ñu fi def mu saf yàlla saf yonente bi saf sëriñ jër jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam boole teew ak muy teewlu ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan ci yàlla ak yonent bi Sëriñ Tuubaa jataay bii yàlla na ko yàlla nangu dañu yàgg koo def mboolem ñi koy taxaw it sama borom dafa leen mucc ko ànd ak yokku ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di leen fàttali nag bis bii nga xam ne moom la Sëriñ ma di woote bis la boo xam ne bisub cosaan la ndax pàkk bii ñu toog fii la Mat Saxir radiyallahu taala di jóge liggéey di fi ñëw di fi fekk ci sunu maam di mbokkam di taalibeem di fi def ay fan ba ba ba di ko def ay ay at ay bu ñu fi defee ba yàlla jeexal ko sunu Ibrahima sëriñ Ibrahima Mbay mi nga xam ne moo ko wuutu doonoon ñaareelu xalifaam mu tudde ko sëñ Ibrahima mii di ko taxaw bis bi tey moom def nañ fi biir ndax def na fi war na fee def ci ay ngan lu mat ñeent fukki at kon loolu yàgg na ñoo ngi ñaan nag bis bi képp koo xam ne yaa ngi dégg walla ngay gis nga xam ne bés mooy bis bi nga xam ne mooy bés bi waliyu tedd wa daan jóge njaambur di ñëw di siyaare si kilifa ay taalibeem jaar ci nga xam ne mooy ki fi nekk ki fi nekkaloon ci jamono Cheikh Mamadou Fadal jaar fa siyaare bu ñëwee door egsi fii ci mbokk yi ñoom moom lañ leen di fàttali ñu leen di xamal ne nag bés la boo xam ne ku ci feeñ dootoo nëbb loolu moom mën xam naa ko ndax lu ci bëri fi la ma fekk te gis ku ku fekke woon na mu demee woon njëlbeen nga bu njëkk da nga xam ne tey ak yokk am na ci yokk gi nag ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax di ñaan ci yàlla gunte sëriñ Tuubaa mu yàgg sëriñ Ibrahima mii yàkkali ko bëri si woo àddina sépp suñu borom defal ko fanu wu gudd wa ànd ak wér ba yéene jii mu ci yéene mu am mu am ci lu kawe njort moog ñi ma ko bokkal sant nañu bu baax ñépp gërëm nañ ñëpp ñoo ngi woo nag suñu bokk yi nga xam ne ñooy waa mbayeen képp koo xam ne ci askanu mbayeen nga wala askanu jolof daal ndax su ma limee damay juum kon bokk yi nga xam ne ñoo bokk askanu mbayeen daal ñu ngi leen di woo ci bis bii nga xam ne moom lañuy taxawal mu doon bisib cosaan boo xam ne sunu maam Ahmad Saxir Mbay da ko daan gane si suñu maam ñu di ko màggal ba tey jii sëriñ bi ne woote ko nag yaatal ko yàkkali ko kon ñoo ngi tàllal loxo ñëpp mbooleem fu mbokk ne di ñu dégg wala mu di ñu gis ñoo ngi sàkku sa teewaay fii di ñaan ci yàlla ak yonent bi sëriñ Tuubaa képp ku fi teew yàlla na yàlla faj saajo sant nañ leen bu baax jërë ngeen jëf sant nañ ci taxawaay bu rafet bi seen coono bi nga xam ne yéen a ngi ko ci daj ak taxawaay yàlla na leen ci yàlla defal lu kawe seen njort kenn ku ci nekk li nga xam ne moom la yéene ci bés bi yàlla na ko sama borom defal ko ci ak jàppandal tur yi nag moom tur yi damay wax ne tur yi fu ma sa jaar sama xol sedd na ci waaye yii moom dafa raw ndax ñii jëmm yii ñu ko jagleel ren dañu doon jëmm yoo xam ne euh, kenn du leen fàtte kenn du leen fàtte war nañ fu ñu toll di leen fàttaliku kon nag loolu dañ ciy santaat sëriñ yi ba mi nga xam ne dem na ba xelam daj mu mu mu mu fàttaliku ñooñu xam ne ci lañu bokk mu boole leen ci jërë ngeen jëfu salaam. jësaaka yow sang bi ñu lay si Baay Saam ndax yaay ki ba ñu xam kuy maam borom Tuuba. jasaaka yow sang bi ñu ngi lay siyaare sëriñ Saambay ndax yaay ci tax ba ñu xam kuy maam borom Tuuba ba tey rek ci woote bi rek ñi ngi woo autorité dëkk bi yëpp nag ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal dëkk bi te yàlla jox leen ay ndombay tànk wala ñu am lu ñu bëgg ci dëkk bi ñëpp rek di ko tàmbalee ci monsieur le maire Galoba ak adjoint Serigne Morane Gueye ak Abdou Mbacke Ndaw ancien maire ak Abdou Karim Fall ak sëriñ Saliou Bousso ak Serigne Mbacke fay ak Serigne Abdou Aziz Ndiaye ak Abdou Lahat Lo mboole seen ñooñu nga xam ne ñëpp doomu dëkk bi lan am ay ndombay tànk baa ñuy am ñu yóotu ci dëkk bi ñoo ngi leen di woo ci suñu bis bu rëy bii nga xam ne amuñu lu may moom ànd ak ñoom ci bis bi itam te yàlla rek tax ndax kin koy defal mu jaddit la woon bu mag a mag di Serigne Sam radiyallahu anhu kon nag ñoo ngi leen di woo ñëpp bàyyiwuñu kenn di woo itam site internet yëpp itam ci bis bi bàyyiwuñu benn ndax suñu bis bii kat bis la boo xam ne bis du ko gën rëy ci noonu kon nag képp koo xam ne yaa ngi nekk ci wàllu média wala nga nekk ci internet bi ñoo ngi la cay woo te di ci sàkku sa loxo itam ngir ñu ànd kook yow ndax bëgg nañ suñu bis bi yaatu lool di sant bu baax itam nag ñi nga xam ne ñoo fi jot ñëw muy caméraman yi ak sunaa journaliste yëpp rek ñu ngi leen di sant di leen gërëm sëñ Sam mi tax ngeen ñëw yàlla na yàlla dogal mu fay leen ci barke Seexuna Seexul Xadim sant nañ leen bu baax a baax gërëm nañ leen bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu ñeent loolu rek moo doonoon woote bi nga xam ne moo taxoon ñuy woote kon ñoo ngi koy fas yéene wàcce suñu kàddu foofu di ñaan yàlla suñu borom yóbbuñ ci bis ba ñaan yàlla ñëpp wuy suñu ñaan yàlla luñ ci def yàlla na ko sëñ Tuubaa gërëm barki alxuraan xasa yi jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu